yu ñu fi teew yëpp di si li ñëw fi si je vois bi bon peut-être ñi nga xam ne jotuñu ma xam man maay El Babou Samb di grand jaraaf du village de Ngor di en même temps conseiller coutumier auprès du gouverneur de la région de Dakar et sama xarit ndey ji réew Alaji Mansour Ndoy moo ñëw ba sama kër une forte délégation ñëw jógal ñu mbir mi ñu kontaan ci lool parce que dafa ne lu am solo parce que ñepp xam nañu actuellement géej gi li muy yóbbu si yi bari na lool xam nañu ne géej gi aussi jën amatu fi té ñun ñepp ay nappkat lañu ñun lew ñu ay nappkat lañu donc eh, suñu maam yi su amé ñu leen gi ci géyante ñu né nañu def li lu jaadu la lu mu ñu waral war nañu ko ci def parce que xalé yi sonna nañu eh, mag ñi sonna nañu. donc euh, Ndeye Diouré maa ngi lay gërëm ak délégation bi ma àndal parce que daanaka Ngor yëpp teew na parce que ànd naag euh, le président des frais Mamadou Mbeng xam nga Ngor am na benn kuréel bu notable yi ñu ko ñoo frais bon ànd naa ak sama rakk ba mbokk ndey ak baay muy Alassane Sam gendarme à la retraite ànd naag ki nga xam ne au niveau des frais moo yor commission des conflits ñu ko weex Mamadou Samba Ndiaw donc mun naa wax ne Ngor yëpp teew nañu te iliman ratib bi tàggu nañu ko mu jox ñu ndigal donc li may ñaan mooy eh, léppal ñu fi ñaan yal na ko yàlla nangu eh, li ñu bëgg ci géej gi yàlla defal ñu ko xale yi aussi eh, yooyu ñuy def yàlla fexe ba ñu génn ci wasalaam. merci beaucoup. asalaamualeykum wa rahmatullah wa yi nu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baal di leen baal di nuyu yépp askanu lébu gépp di wax ni lii dañ ñu ko cërëre rek nu am fi kàddu waaye ndey ji réew Mansour Ndoye bu waxee rek yóbbaale noonu parce que nag lébu noonu lay doxee parce que mag ñi dañ ni woon nan def nig bale liñ si jublu mooy nu booloo parce que pour nga mën a jariñu da ngay booloo boo booloo rek loo mënti def jariñu mais boo boolowul doo jariñu ñu ànd ak benn délégation bu am solo ñu di ko wax grand sëriñ Abdou Ndoye ànd ak ambassadeur barxaan siis ànd ak saltige Ousseynou Seck waaye dañuy wax ni lu dul jàmm jàmm ko gën li waral lii mooy jàmm rek parce que mag ñi kat nii lan daan def te yàlla bu nu mujjee puso bi mu réer lan mooy yàlla bu nu mujjee puso bi mu réer yàlla dañ wàcc fii si kaw suuf bi mu nu wàccee ñun ay lébu lan la lébu mas a xam géej mbay yàlla boole nu ak ay jinne ñu mas a ànd ak maam yi déggoo woon ak maam yi lool maam yi bàyyi noog reen yi kon war na noo déggook ñoom te dama wax ni loo tal rek da nga am jàmm waaye boo amul jàmm doo tal dara heure bi ñu defee nag lu am solo la parce que damay faral di wax si samay wax ni àdduna ñaari si gën géej gu neex lool bari jën lool ak mbay mu dox bu mbay doxee rek géej dox rek attan lépp kon tur bi di saltige Jamil lépp lu ngeen si jublu yal na yàlla def si lu kawe sunu njort yal na maam nungul nu ba nu xam ni kat fan yii ba leen fee jóge semaine bi yal na jën bari lool gis bari waraañ bari coof bari doy bari lépp bari di ay jën parce que kat ab lébu ba taxawee la wax si tefes war naa bàyyi xel ni géej moom la am amul lu dul géej kon nag li nga am boo si taxawee war ngaa ñaan te géej gi kat dara jeexu fi nu toll si ab nawet sàmbaraax war a ñëwul war lépp war a ñëw géej dafa yéeme lépp lu si bokul bu tawee dina ko génne moo waral bu tawee noonu nga gis géej gi fuur kon nag mbaaw nga la ma yéen yàlla na yàlla fayal leen taxaw ngeen lebu gépp askanu lebu gep taxaw nan ànd ak yéen yàlla na yàlla nungul nu wa aleykum salam wa rahmatullah asalaamaaleykum mbokki mbaaw asalaamaaleykum wa fukki pénc ak ñaar ñi ngank lebu gi di wax alaykum la grande ji rew sunu papa Mansour ndoy mbir cieur la rek waye ndox du wala nga ne du fekk dara lu dul ndox démb kumba moy sama mam di setu giran doy allah ji mo ndoy ma duma sore soree it li mag ñi naan geenu golo guduna waye do ci lalé borom yekko bon mbaw gi la bok du mbaw nexes ma nex du mbaw nakare ma nakari papa ñu ngi leen di fay di wax nak ne yalla na yalla yeureum sama mak sama grand frère ñukoy wax mustafa kan fi la nekkon nek jaraaf ñun ñaar ñu nefi yalla def mu jitu genn aduna bon yalla nako yalla xari aljana dumay du it damay gërëm mam famille mam Demba Kumba ndax tey nu ma mel di takk ndomba tànk wala maam di ma déey may ne ci samay kanamu mag ne ci samay ginnaaw mag bon ci man dem ba Kumba la ku fi ñëw nag di jaraaf di saltige di kum mën a doon ñëwaloo fi kenn man mii di jaraaf Ibrahima Ndoye mu sëñ Babacar nga fi ñëwal ndax ginnaaw yàlla nag kër day am bunt te bunt bi man la di gërëm tamit ñi xam ne tey jii ñoo tax ma mel ni ma mel ndax man kenn rek mënuma seet ndomba di ko takk saltige Maodo Ngom ne ma jot na nga takk sa ndombu maam boole ma nag ak waa seeneel bi Ousseynou Diop ndey njambur di sama rak bàyyi pip di sunu papa dëkk barni, nga ñew ci Moussa Niang dëkk Tëngéej nga jóge fofu dem ba mbour sunu frère mu ngi ni tok mom tamit baye lepp ñew te kenn yëkkatiwu leen lu dul sama jëmm ji bon yàlla na leen yàlla fay aduna nag ñaar moo fi ne mooy day am lan continue bala moo ñëw di dugg fenn waroon naa ñëw gërëm ñaar nuyu ñaar ndax tey du ma ñëwee mbaaw fekk fi chef de village bala maa waxal ak kenn chef de village laay waxal grand sec jéppi woo mbaaw mbaaw ñu la yalla sa jamm yag tay duñ tëddee nak di nelaw fi ci gox bi kenn ku ci nek am tranquille ngay tëdd di nelaw sa bop mën ñew tay nga yewu suba tay am nañu ko def ci ñun c'est pas la même uniforme monsieur le commandant mbou gis nañ sa liggéey dañuy ñaan yalla ñaan armée bi ñaan état bi du fekkoon yokal day am yor nañu la yokal te bàyyi ñu fi ak yow ndax duñ tëddee nak dañuy nelaw te ku teggul yoon it nga ne ko tegoo ci yoon ba ci man mi tok di wax ak yow bon yalla sa jamm yag ma ngi sant ñepp nak papa gumbe wuñu fi ndaw rabbin wuñu fi dañuy ñew pour lan pour ñaan jamm am ala kulli alin yàlla nee na ñaan leen ma ma may leen inna lazina amanu wa amino bon yàlla kan lay waxal bon ñun lay waxal yàlla nag dafa am ñoo xamante ne ñooñu la wàcc ne wàcc naa nit ak jinne pour ñu jaamu ma loolu moo ñu dugal tey jii ci ay tuur yàlla dafa ne wàcc naa nit ak jinne pour ñu jaamu ma sunu maam nag moo àndoon ak jinne yi tey moo tax ñun ñuy tuur jinne yi dinu wax ñuy dégg loolu moo tax tamit kii di sol lii kii di sol lii suñu yëfi maam la duñ ko bàyyi ilaa yawmil diini ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne tuur bi ñu fi tuuru pour mbaaw ak kaveer ak àdduna bi yëpp yàlla na ko yàlla nangu ñi fi nekk nag ngànki état bi yàlla may leen vision bu leer yàlla na nu àggali ak jàmm ak salaam ci barki Seydou jot sant naa ñëpp nuyu naa ñëpp gërëm naa ñëpp yal na yàlla fay leen yal na yàlla fay leen jërë ngeen jëf.